Heavyweights.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 ñaar fukk kenn ki mu ngi woo ci turu Deba ka ca des di woo ci turu Asi ñoom ñëpp dëkk ca village bu ñu naan Wurohowa nekk ca commune bu Medina Njajbe ca arrondissement bu Kaka mbir mi nag nee ñu nii la demee ñaari sàmmkat yooyu dañoo àndoon dem fanaani beneen village bu jege seen village naka noonu bi ñuy ñibbisi nag ci la ñu jàppante xeex xeexoo bu metti naka noonu nag ci la Deba jëlee paaka jam ko Asi ba mu jaare fa ñàkk bakkanam musiba naaru lay musiba boobu nag nee ñu mu ngi xew guddi juróom-ñeenti fan ci weeru ut débat mi def jëye ji nag fi mu nekk brigade bu gendarmerie bu pété teg nañ ko loxo waaye nag ci dëgg-dëgg li ñu constaté mooy zone Fuuta boobu li bëgg a yàq ndaw ñu bari ñu fa nekk mooy xale yi dañoo jógtee mandi li ñuy gën a utiliser nag pour mandi ab laj ko lañ la bu ñu naan bul faale ma ne laj ko lañu bul faale boobu mu ngi bëgg a yàq avenir jeunes yu bari ci gox boobu tanag nee ñu autorité yi buñ ci taxawul arrêté ko jëfandikoo gi ko ndaw ñi di jëfandikoo moom xeetu ñol woow di ab laj ko la ñu naan ko bul faale te ndaw yi buñ ko jëfandikoo zuy la ñuy def musiba naaru lay dana am ma ne leen yëf yi de léegi fépp la gone yi fépp la ñuy mbuxee yàmbaa xeetu ñol wu ne ay xoox moo tax buñ ci jógul maara deetaali moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax kii nag ab waay la waaye nee na moom daal li ko dal mooy da doon liggéey ci benn structure sanitaire naka noonu diiraa ñoom ñaar liñu ñu nekk yépp ndaw si di soxnaam soosu daanaka mësul am jotam ma ne ko mu ngi ci musiba de moom daal ci liggéeyam lay nekk bu ñoree nekk ci boppam wax ji nag nee na ci nekkin ba mu nekk ak soxnaam soosu daanaka mbindaanam bi doon liggéey ci kër gi moo koy defal lépp laa wax <laughs> ma ne attention waa ji nee na mbindaan bi moo koy toggal moo koy yekkal di ko jox muy lekk di ko fóoteel di ko paaseel di ko baleel néegam <laughs> moo tax ma ne attention ci noonu nag sawaay nee na dem ba mbëggeel daal di ko ciy daab ci digganteem ak mbindaan boobu <laughs> ma ne ko bettu ma de naka noonu ñoom ñaar ñuy may di wax léegi jël ma ci suuf ba ndogal mujj am ci seen diggante mindaan bi jële ci ëmb waay waay waay def ba lépp nag doon nga ko takk rek bi loolu amee nag waa ji ne ay paaram ne ko mu takk mbindaan bi ñaareel <laughs> waa moo gën nag waaye waroon nga koo teel def sa waaye nee na mu mujj def lu ni mel dal di takk mbindaan bi waaye nee na bi mu takkee mbindaanam boobu bëgg na ko mbëggeel goo xam ni maar de tali na daal xamul fu mu tàmbalee xamul fu mu yem ma ne ko da ngay dóoru similiku sa waay nee na bi mu takkee bi ndaanam boobu deuxième lay doog a yëg ne am na jabar ka mu doon seet daal gis na ko naka noonu nag aawam bi munul woon digérer ak a mu takk mbindaan boobu <laughs> ma ne ko yaa def de am bi sax dem na ba gis ne sa ni mu mel ci ñaareelam boobu di mbindaan bi bëgg gim ko bëgg ak bi mu koy toppatoo na ba yaakaar ni mbindaan bi dafa liggéey jëkkëram ji ngir mu takk ko ci noonu nag la songee jëkkër gi dal di ko koy yeggee ne ko sa mbindaan mi dalaa liggéey ba nga ko waaye nag li ko jëkkër gi tontoo graaw ndax daf ni ko su gisoon waa ji ko liggéey ba mbindaan bi bëgg ko dana ko neexal yokkal ko xaalis teg ko ci ne ko na yokku liggéey bi ndax moom daal mu ngi door a dund ma ne kon nag cey góor ñi daal fa mu gën a yombe fa mu gën a nooye fa mu gën a neexe nag jigéen ñi toppatoo seen borom kër yi waaye am sa jëkkër bàyyi beneen jigéen di ko defal lépp di ko toggal di ko fóotal di ko paaseel di ko attaayaal jege ko yu mel nii rek mu doon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz